bu baax ko euh, suivre naa ko ci ci li nga xam ne mooy résolution conflit bi au niveau du Burkina Faso xar na ci tànk tubéyam au niveau du Tchad xar na ci tànk tubéyam bariwul coow na mais quand am na ay succès yoo xam ne c'est des succès diplomatiques pour le Sénégal loolu tam lu am solo la ça veut que soo gisee état bi dugg ci li ñuy wax cercle vertueux da nga ko fay téye <laughs> suñu suñu commencé dugal ci loo xam ne nii dafa baax muy au niveau national muy au niveau régional muy au niveau international da nga fay téye état bi ñun tànk yooyu lañu nekk su fekkee ni opposition bi aussi dañu dugg ci biir cercle vicieux ñu leen deet bu ñu duggee cercle vertueux ñu ne leen ah nekk leen ci parce que en réalité il faut ñu transformer situation bi nga xam ne c'est une situation d'incertitude boo xoolee horizon bi da nga naan fan lañ jëm boo gisee xeex yeeg xuloo yi nga ne fu ñu jëm da nga ah, arrêté leen teg waxtaan seet nan lañuy ñuy changer situation bi ba ëllëg 2024 bu ñu fay dem vraiment ñu dem fa ak jàmm. mais euh, tey jii euh, yaa ngi koy wax le président réussit à discuter hors du Sénégal et pourquoi à l'intérieur de son pays il peine à discuter avec l'opposition te ñoom chaque jour dañ koy dégg ñuy wax ne da ngeen war wax ki yore yat bi di dóor na bàyyi dóor ba pare ñu doog a waxtaan mais mënoo di dóor ba pare euh, nit ñi bëgg lâcher du lest ci li ñuy xeex. Adja Awa. posé nga question bu am solo je suis totalement d'accord ak yow c'est que les efforts ak volonté politique bi nga xam ne moom ngay déployer di résoudre des crises extrêmement difficiles te crise bu mel ni crise u euh, Burkina <laughs> yombul la ah. bu mel ni bu Tchad nga xam ni quand même c'est des groupe militaro Euh, mais bu Mali bi il bu Mali lu jafe la boo demee ba nga xam ne di nga régler problème yooyu war ngaa mun a toog na nga régler ah, war nga am intelligence politique boo xam ne mun nga régler problème mu Sénégal te ñun loolu dañ koy encourager loolu lañ koy encourager c'est que fii lu mu doon qui le plus. peu le le moins. et fii avec un tout petit je pense que ñun ñi dinañ ko déglu bu ñu fexee ba nga xam ne. Euh, li ñu jublu effort venant de kii parce que tey ji doo ma ne opposition bi ñoom ñoo war a def effort parce que ñoom tey lii métti ñoom ñëpp ci seen kaw la daal. pour man initiateur bi mooy président de la République moom moo war a jël ay initiative pour restaurer la confiance avec l'ensemble des acteurs moom moo war a jël ba nga xam ne euh, li ñuy wax kóolute dina dellu si. mais avant les acteurs il y peuple. man acteurs yi kay mooy son peuple ah, surtout xam nga dama la wax rek conditions yi nga xam ne moo am à l'extérieur. nga xam ni boo xoolee contexte extérieur bi dafa doy waar muy international muy régional muy national mm-hmm. parce que crise u Ukraine bi effet bi mu am ci suñu situation famine sax la la commencé indi dans certaines régions situation boo xoolee situation intérieure bu Sénégal bés bu ne sur le plan social da ngay gis ñuy jóg di coow foo laal mu métti marché nag du ma ko wax mhm. sénégalais bu jël bu jóg tey nga xam ne dugg nga biir marché jënd yàpp jënd jën nga dugg marché euh, da naan ma nan lay def surtout ak situation scolaire bi nga xam ne moom la ñu ne waxuma nag ak problème yi ñu am mhm. jële problème poste ñu ngi koy wax bu jëlee problème mu lu euh, mu tuddati <coughs> suñu suñu Air Sénégal mhm. ñu koy coow donc booy xool problème yi bari na lool donc loolu àndul encore toujours ak ay tension politique parce que bu tension politique bu ci yokkee rek kenn xamul sax lan lay indi loolu moo tax koo xam ni kii mën nga wax walla nga dox pour waxtaan am juboo am booloo am parce que man li ma gëm ci situation boo xam ni sur le plan national sur le plan régional sur le plan international tension yi am ak risque yi am nga xam ne ñu ngi jëm vert une économie boo xam ni sax c'est une économie de pénurie mhm. donc dañu war a boole suñu doole opposition ak pouvoir li ma gis mooy ñu boole soon doole opposition am na ay xam-xam euh, au niveau da ci gis ñoo xam ne dëgg-dëgg <laughs> tey boo leen jëlee dugal leen ci gouvernement day dox ñu am xam-xam macha allah mu ngi ci opposition am na ci biir pouvoir bu ñu lëkkaloo ñu jël comme loolu la wax transition civile ñu waxtaan gouvernement du ñëw fexe ba nga xam ne li nga xam ne moo am te mu ay métit sur le plan international sur le plan régional sur le plan national mu xaw a wàññeeku ba pare Sénégal day wane yoon day wane ni am nañu ay solutions yoo xam ne c'est des solutions démocratiques c'est des solutions politiques pour nga garantir si situation national bi surtout nga permettre surtout ñi nga xam ne ñoo gën a sonn surtout ci ci ci ci ci ouverture des classes bi nga xam ne moom la ñu ne mm-hmm. ñu fexe ba nga xam ni sénégalais yi au moins dinañu souffler. mais tey euh, yaa ngi wax ci tension sociale bi tey euh, président de la république dafa jël ay mesures yoo xamante ne pour euh, mettre soulager un peu population mais est-ce que yaakaar nga ne ak point yi mi teg sur la table par rapport au loyer par rapport à la souveraineté alimentaire en un laps de temps mën na koo régler et avec les difficultés ndax dañu naan hexagone suñu si bureau rek ñun boobu dee nañu ñu ngi sukuraat situation bi ñu toll tey ji est-ce xam nga loolu yëpp ak ni ma la ko waxee rek gis pour mu yomb te waxtaan am yooyu day am xam nga am na temps xaw yaa ngi xalaat 1989. eh boobu bi ñu amee crise nga xam ne c'était la crise avec la Mauritanie mu ne crise bu méttee méttee méttee yenn période yooyu dañu amoon aussi ay intellectuels de gauche yoo xam ne ñoom réew mi moo leen ñor. ñu mel ni ñoom ko ñu mel ni ñoom Sémou Pathé Gueye dañu ne léegi il faut ñu am gouvernement d'union nationale pour xool nan la ñuy gérer crise yi te boolewuma ci sax problème yi nga xam ne moom la banque mondiale andi ak fonds monétaire international mhm. ci la ñu jëkk am à partir de 91 bi ñu génnee ñoom wàdd dugg ci biir mais loolu yëpp c'est parce que jafe-jafe moo ko indi woon mhm. tey jafe-jafe yi ñu am surtout ak pétrole bi ak gaz bi ñëw mais je que waruñu ko nag di ko di ko wax dafa war a nekk quelque chose d'automatique du fait même xam nga sénégalais yi le peuple sénégalais ay génie lañu c'est extraordinaire lii ñu def mu am biir assemblée nationale seulement nag il faut que euh, les hommes politiques am capacité d'interprétation li nga xam ne moom la leen sénégalais yi sas li leen sas mooy ñu booloo fexe ba nga xam ne dinañ gouverner Sénégal ba pare yóbbu ñu ci ay élections yoo xam ne ay élections yu leer la. Mhm. ab ay élections yoo xam ne jàmm ci jàmm lay féete soxla nañ ko. mais instant bi opposition bi nga doon wax entre Wade et Diouf bi mu koy invité invité ci gouvernement ñu am ma combien de gouvernement d'union Wade di dugg génn et mais tey ji maa ngi koy wax à l'entame classe politique bi ñu am tey jii kenn bëgg ci nekk comptable de la gestion de Macky Sall tey jii kon cette union bi nga xamante ne moom ngay prôné tey jii. tey euh, loolu mënaguñ koo xaar ci ñi nga xamante ne moom moo di Macky Sall quelqu'un comme son ko tey ji nañu ko xaar ne mi ngi dem liggéey ak euh, ki nga xamante ne moo di Macky Sall. xam nga transition civile laa wax. waaw xam nga transition boo déggee ñu ne transition mooy da ngeen di waxtaan te waxtaan bi xam nga lu tax mu am solo gis nga tey bu fekkee ne waxtaanuñu par exemple def ñu ngi travailler sur loolu li ñu wax les assises nationales numéro 2 par exemple. gis nga présidence de la république fonction bi ak doole ji mu am ëllëg su fekkee ne usman Sonko jël na ko soit mu def mun na def comme ki mun na def pire mun na def nag lu lu baax mais fonction bi ci boppam structurellement ni mu mel il faut ñuy waxtaane ko yooyu yooyu dafa dafa jar ñu waxtaane ko il faut tamit ñuy waxtaane tamit quand même ay institutions yoo xam ne mun nañu fexe ba nga xam ne dañuy lutter contre par exemple la la la corruption le détournement de fonds comme OFNAC nag batiment bu rafet lañ am boo demee étage bu ne nit ñaa nga fa am personnel de qualité ñu am volonté bu rëy est-ce qu'ils ont les pleins pouvoirs mais voilà loolu nag waxtaan boobu ñuy wax ne nañ ko am dañu war a fexe ba nga xam ne ay institutions comme OFNAC suñu jëlee dossier jox ko procureur dafay nekk une obligation pour le procureur pour mu xool dossier yooyu parce que tant que xam nga pouvoir toujours su fekkee ne ñoom dañuy jël ñu leen neex teg leen ñu def lu leen neex ak alali réew mi te dara du leen ci fekk ça veut que yow su fekkee ne le seul fait nga nekk ci pouvoir bi daf lay jox immunité par rapport aux crimes économiques crimes économiques yi duñ ko régler ba faw li amoon ci Senghor ak ba léegi léegi sax la raw parce que léegi ay milliards la te li ñuy wax tamit déclaration de patrimoine warul ne sax loo xam ne dañ ko war a forcer nit ki yow ci sa bopp boo xamee ne jox nañ la ko sur le plan éthique rek et la morale publique war nga ñëw ni lii laa am booy dem nga ni lii laa nga xam ne jëlu fa dara ça veut dire que tant que amuñu une dissuasion forte ak moo am ay pouvoir yoo xam ne c'est des pouvoirs réels fii ba ilaa ajalel mursalina of nag dana liggéey ba dee def ay rapport ba dee te du am benn résultat boo xam ne moom la ñuy gis moo tax ma ne il faut ñu ñëwaat ci waxtaan boo xam ne présidence de la république dañ koy tëggaat doole ji mu am def lu ko neex xaw a wàññeeku ñu équilibrer pouvoir pouvoir judiciaire parce que bés bu nekk sur sa sur la question politique que muy justice pénale que muy justice euh, comment dirais-je constitutionnelle da ngay xool tu te dis tout le temps bu ñu amee ay problème politique lu leen pouvoir bi wax la def loolu yëpp dañ ko mën a war a waxtaan te ci sama gis-gis bu ñu nee transition civile ku ko mën a def mooy Macky Sall Macky Sall dafa nekk dans une situation historique boo xam ne c'est extraordinaire pour un président c'est-à-dire que politiquement mun na fi jógee am un leadership